voilà mbokk internet yi ñu ngi fii ci euh, Suma assistance mu nekk euh, benn résidence hospitalière bu nekk fii ci cité Kër Góor gi ñu fekk fii euh, ay député yoo xam ni police dañ leen dóor lacrymogène ñu ngi fekk kenn ku koo xam ne ci député la mu présenté wu. maa ngi tudd Ramatoulaye Bodian bokk ci coalition Yewwi Askan Wi. soxna si Ramatoulaye Bodian honorable nga nekk député bu dëkk géejawaay ñëwoon fii ci cité Kër Góor gi lu woon say tànk. dañu ñëwoon pour euh, rencontrer le président Ousmane Sonko wax ko ñun ñu ngi koy jàppale que euh, on est dans un un état de droit et que euh, on espère que dina am un jugement boo xamante ni dina équitable dina dina normal mais yàlla def bu ñu ñëwee on a vu benn barrage yu policier yi def on a vu qu'il y des policiers qui étaient là-bas donc comme on avait nos échappes de lui voilà dañuy amoon suñuy écharpe yoo xamante ne écharpe élu bu ñu jaakaarloo yi ñun exactement donc ñu ngi koy sol ñu ñëw jaakaarloo ak ñoom ñu yaakaaroon ni on affaire à une police républicaine lu yàlla def buñ ñu séenee rek d'abord la ñu njëkk a sàndi seeni i seen i bomb yi buñ ñu séen fekk boobu excès guñu sax bu ñu sàndee seen seen i bopp ba bomb yi malgré ça ñu ne ah xam naa ni erreur la ñu continuer bu ñu ñëwee. erreur la mooy yaakaaroon nañ gisuñ nañ écharpe bi. écharpe bi wala dañu yaakaaroon ne daf keneen lañ daan sànni wala leneen moo tax foule bi dañu bëgg a disperser comme ñoom ils ne discutent pas mais on a ñu dem ba ci ñoom bu ñu demee ba ñoom ñu ne pourquoi ngeen dañu tirer dessus nous sommes des élus du peuple kon ñun dañoo bëggoon xam ndax mën nañ jàll mën nañu jàll mu am kenn si ñoom xam naa ne moom moo nekkoon seen chef si ñoo ñu fa taxawoon mun leen mun nañu mun leen jàll. léegi mun leen jàll pour dem seeti Ousmane Sonko. le président Ousmane Sonko mënu nga traverser barrage barrage bi mu leen au nom de quoi il faut que ndax am ngeen papier buy wane ni fii nii que Ousmane Sonko instant yi ke mënu mënul génn ndax instant yi dafa dañ ko séquestré wala lan moo xew. dafa nekk résident surveillé résident surveillé qu'est-ce qui se passe donc donnez-nous donnez-nous une explication bu war a mën a expliquer lan moo tax ngeen assiégé ko nii te ba ba mënul ba mënul kenn mënul egg ci moom mu ne ñu on n'a rien à vous dire léegi bu ñu wax loolu la temps que ñu argumenté waat mu jël élan tiré sur Guy Marius bu mu tiré sur Guy Marius may wax leen comment est-ce que vous pouvez faire ça vous êtes là pour la population vous êtes là pour le peuple waa gi yëlaat élan tiré encore ci man looloo ñëw ni mu daal di dal sama tànk ah moom moo dal ni sama tànk dafa fekk ma reculer moo tax je ne sais pas ndax da daan moom bas moom bas ventre parce que léegi loolu la ñu xew à Bignona y a un jeune bu ngi noonu ñu daal di koy yàq àddinaam pour la vie et c'est un ak sénégalais di leen wax ni bu fekkente ne c'était une police républicaine defe naa suñuy écharpe ñu sol bu ñu ko gisee rek dafa war a dañuy war a am un peu de parce que je me dis que ils ont ils doivent être formés à la bonne école que ce des gens yi nga xamante ne xam nañ ni population mu lay yëkkati ils ne sont pas là pour un roi ils sont là pour la population protéger la la population ba leen gis da ngay xamante ni yow sa addina tu en sûreté lu ñu gis mooy c'était des policiers nga xamante ne ils à en découdre avec la population et ils ne respectent pas les institutions du Sénégal kon policier bu mel noonu kuy gis un député du peuple te mu sol euh, écharpe am mu tiire ko. est-ce que policier boobu est-ce qu'il mérite respecté loolu laa bëgg xam. léegi yow euh, li nga xamante ni moom moo la dal ci tànk bi lan la la médecin yi wax. ah médecin bi ñu ne ma dafa def inflammation mais ça heureusement que laalul ci tànk bi le fait que ma pivoté loolu tax c'est euh, dafa dem laal ci chair bi mais amaana impact bu mu ñëwee force bu mu ñëwee bu laaloon tànk bi xam naa ne peut-être que dinaa am. Euh, ba kii daf la ko portant wala am na distance. à bout ngi nekkoon nii bi ngi nekkoon ya ça ça faisait pas 100 mètres ça yàggul soriwul ñu ngi nekkoon près du barrage mu jël recul tiré ma c'est pour dire que ce sont des criminels ils ne respectent pas la vie humaine ils ne respectent pas la vie humaine et je m'adresse aux jeunes sénégalais ces gens-là ne sont pas de vos frères ils ne sont pas là pour vous protéger ils sont là parce que dañ leen dañ leen promettre quelque chose man mi élu du man maa ko wax. voilà élu du peuple ndax ndax li lii ak li nga wax tam ëpp na. ëppul ëppul parce que quand on est dans un état ba nga xamante ni les policiers ne respectent même pas la constitution je ne sais pas ces ces policiers lan moo tax ni ñu war leen respecter. mais en tant a xaar ci yow en pour faire face à la police. man je suis désarmé j'ai pas d'arme je suis je n'ai je n'ai que la constitution. moom laa lay wax ni une fois à l'assemblée déjà que ñun euh, on a demandé à avoir des certificats médicaux. ñun on va déposer à l'Assemblée on va porter plainte d'abord un et après on va exiger que tous les que tous les, les policiers qui étaient là ñu mun leen identifier et on va porter plainte on va porter plainte par rapport à ça parce que ñu nekk ay député du peuple mënoo nekk ci Sénégal et puis y a une chose aussi que je déplore damay passé di ci beneen kii je ne peux pas comprendre à chaque fois qu'il y a une marche les policiers ont le devoir de s'identifier dañu war a identifier wu ñu mën a xamante ni celui-là c'est un c'est policier mais duñu identifier wu ba doo xamee la euh, nu mu tuddoo le nervi doo xamee kan mooy les policiers. dañoo kàggulu wala. du kàggulu sax duñu sol uniforme. ñu sol uniforme alors que la loi dafa exiger que la police doit doit s'identifier. maanaam yéen policiers yi ngeen doon wax sol ñu tenue police. ñoom sol nañ policier mais en en bu amee marche laa wax c'est-à-dire que le policier doit toujours s'identifier quand il parle au euh, nu mu tudd au citoyen le citoyen doit savoir que je m'adresse à un agent de la police. mais bu amee marche du ñu abi du duñu du am lenn loo xamante ni dañ leen di mën a identifier je pense que bu ñu ko defee c'est pour jàppale les les membres du gouvernement yi nga xamante ni dañuy engagé de nervis. mais mais honorable tam euh, vous êtes consciente que ni euh, du policier yëpp ñooy tax soutenu quand même. waaw mais quand il y a des marches le policier doit s'identifier parce que loolu mooy règle bi xam nga un policier bu identifié wu mooy un policier même xamante dafa nekk di def enquête. dafa nekk di def enquête dafa ad wala muy def filature mais foofu amul filature manifestation la le policier a l'obligation de s'identifier bu identifier c'est parce que il est en complicité avec les ministres qui pay les nervis pour pouvoir tabasser pour pouvoir taper sur du patriote. jërëjëf euh, honorable euh, ñu ngi jéem a dugg ci biir pour euh, for ta wala boog taataan yeneen information yi nga xam te ni mën nañ ko am ci biir fii ci. Euh, résidence hospitalière bu euh, cité Kër Góor gi. Euh, mbokk internet Sénégal ñi ngi fii ak honorable député Abbas Fall mu seet si tey mbokkam Guy Marius Sagna ginnaaw ñoo àndoon ca bunt kër Ousmane Sonko policier yi dóor Guy Marius Sagna lacrymogène ci tànk bi ci pooj bi lañ ma wax sax donc mu wax Abbas xëy na mu indil ñu ay information ci loolu. waaw jërëjëf en fait euh, comme vous le dites Guy Marius Sagna mu ci biir ñoo àndoon tout à l'heure ñun euh, cinq député kese lañu ñu woon. man la Guy Marius Sagna Rama Bodian euh, Ismaïla Diallo ak Fatou Ba cinq députés cinq personnes amuloon attroupement amul dara y avait les journalistes ñu ne woon dañuy dem seeti président Ousmane sonk buñ ne buñ ñu waxee duñu dugg ñu laaj lu tax ni ñuy ñëwee di jege barrière yi. ci la gars yi commencé sànni ay grenade lacrymogène xam nga man loolu sax ma ci problème sànni grenade lacrymogène c'est pour disperser une foule cinq personnes du foule mais li ci gën a graaw mooy nii lañ doon tiiree sa diggante fii ak fii nii lañ doon def. donc dañ doon viser. mais dañ doon viser et ça c'est qui est extrêmement grave. mais est-ce que yéen a ngi ak seen écharpe pour député. bien sûr moo tax bi ma ñëwee léegi dama sunni écharpe sànni ko ne amatul njariñ ñun benn institution la ñuy représenté waxuñu sax député yi ñoo fi gën mais institution la ñuy représenté sénégalais yi ñoo génn jox ñu des millions de des millions de voix nañu dem leen assemblée ngeen représenté ñun. ñu ñëw pour que les sénégalais xool ne dans ce pays on viole les droits des citoyens dont un d'entre eux le président Ousmane Sonko. dégluwuñu sax ek bàyyi ñu egg ñu commencé tirer mais tey Guy Marius Sagna fii la ko dal ci poche. mënoon na ko dal fu gën a ne fu gën a gën a garaaw mënoon na ko dal ci bopp mënoon ko rey Rama Bodian ci ci ci tànk man dama am chance mais mënoon na ma dal man aussi rey ma man je trouve que l'attitude de cette police lii bu fekkee policier la ñiy def lii bu fekkee ay policier la ñu non y a de quoi avoir c'est-à-dire que Sénégal amatul police lii policier bu normal du def lii ça veut dire que y a chose derrière li ci gën a graaw quand ils ñu dem dugg ci benn magasin bu nekk juste à côté baissé yi ñu ñëw jël grenade lacrymogène sànni ko ci dugal ko sànni waat ko ci suuf gré yi. comme leen bëggoon étouffer. mais c'est ça dañu bëggoon étouffer dañu bëggoon mais en fait c'est extrêmement grave donc on est resté là-bas cinq minutes on a failli suffoquer on était obligé de lever de lever les rideaux génn loolu moo ñu may chance. après bi ngeen génne ñoom arrêté wuñ leen. arrêté wuñu wax ñu dara loolu mooy lan mais c'est quoi ça. xanaa nag ay ordre même boo ko jotee mais une police qui n'est pas intelligente mais ce n'est pas une police. Guy Marius Sagna ci ban état la ci ban état la nekk. mu ngi fii si urgence yi mu ngi nit mu ngi kii gaañ nañ ko ci poche ñu il est au soin heureusement Rama Bodian sax mën na dem mais gii mu ngi nii mënul dem te yàlla tere affaire bi fi mu jegee mais bu jegoon tuuti kon yàq na yàq na leneen lu gën a garaaw ci moom. yàq na ay awraam waaw boobu pour pour pour bañ ci pour bañ ci kii yàqoon na ay awraam mais loolu c'est extrêmement grave cinq personnes armé wuñu yoruñu jaas yi yoruñu yet yoruñu dara ak lu dul suñu écharpe pour wane nous sommes venus dans la paix pour wax ak yéen pour laaj leen rek ndax mën nañu dem wala mënuñu dem ils ne nous ont même pas laissé et li ci gën a garaaw mooy ah bi ñu fekkee ci mag jël lakk grenade lacrymogène dugal ko ci biir foofu fu tëju mais ça c'est extrêmement grave qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. donc amuloon woon benn militant à part yéen député yi ak journalistes yi. il y nu que les cinq députés et les journalistes seen mbokk journalistes yi tey xaw nañu dee lu ne def nañ leen ko. Ah, il paraît même am na kuñ ci jàpp. il paraît même am na kuñ ci jàpp mais loolu pour lan fan lañ ko teg cinq personnes naka lañ mën a représenter une menace sans arme ni rien naka lañ mën a représenter une menace nga jël leen jéem leen toroxal noonu. merci beaucoup honorable euh, Abbas bi nga xamante ne nii euh, moom ak Guy Marius Sagna ñoo àndoon moo ngi doon décrire. Euh, li nga xam te ni moom la ñu dund tey ci suba si euh, fii ci euh, cité Kër Góor gi vraiment mu nekk lu metti lu metti metti trop sax waaye nag ainsi va Sénégal ci jamono yi ñu toll am na raison yoo xam te ni ñun mënuñu ko mënuñu ko am mënuñu ko expliquer aussi mënuñu expliquer yan raison moo tax alkaati tëj Ousmane Sonko ne ko doo génn sa kër mënuñu am tam raison bu war a tax. ñu sànni ay député yu takk seen écharpe ñu sànni leen lacrymogène à bout portant comme ñoom li ñu ko waxee mënuñu am tam euh, benn explication bu war a tax euh, ñu ñu ñu journalistes yi itam ñu leen di tere ñu def seen liggéey vraiment nekk na ay euh, ay explication yu bëri yoo xam nii ñu ngi wut ay tontu mais ba léegi mënuñu ko am mënuñu ko am parce que daal bon jamono ji ñu toll daal fii la mi toll voilà euh, mbokk internet yi bon est-ce que duñu am arrière-plan ambulance bi taxaw nii. Ah, pour ñu wane voilà mbokk internet yi euh, bu ngeen gisee arrière-plan bi rek ñu xam ni euh, ñu ngi fi tuju ci suma assistance bi nekk fii ci cité Kër Góor gi li ñu fi indi nag mooy dafa amoon lu mat juróomi député yi ñëw woon di seet si Ousmane Sonko këram fekk ñu alkaati yi barricade këram ba kenn muntu dugg kenn mënut a génn mu amoon juróomi député yi dafa ne dañ koy nemmeeku si policiers yi nag. ay non seulement sax bàyyi leen ñu yegg si d'après ñoom li député yi wax mais dañ leen di joor ay lacrymogène ba gaañ ci ñaari député kenn ku jigéen muy député Géejawaay bi ak Guy Marius Sagna bi nga xam te ni euh, mu ngi fii ci biir hôpital bi mun a génn ndaxte euh, dafa nekk ci ay soin dafa nekk ci loxoy euh, docteurs yi. wala léegi nag ñu ngi fi ak beneen beneen député boo xam ne sunu kaddu la amee muy Abba mbay moom xëy na tam bu fekkee ne il est témoin mu wax ñu naka la version yi c'est sa version wala boog naka la yi fi demee. waaw maa leen di maa leen di nuyu man bi fay dem fekk moo fi. Euh, je pense que depuis hier bi ñu jógee ci manifestation bi on avait prévu que yenn député yi nga xamante ne demuñu ci seen base yi plémarge ñu dem ci euh, président Sonko maintenant bi ñu ñëw ba fii dañ dëkk jëm côté ba ñu tere leen ñu wéeri ñëw côté bi et les gens l'ont empêché de d'accéder après ñu ñu tiré leen dessus loolu moo fi am quoi. ba réaction nga ci am en tant que député en tant que représentant du peuple. Mm. non je pense que amul surprise. je pense que ah Sénégal Sénégal bu ñu demee ba ay di marche. di wax ne dañ bëgg a liggéey et ça ne choque personne je pense que bu ñu leen tiré dessus aussi ça ne choque personne. je pense que li xew nekk na des choses extrêmement graves tey zone d' expression député yi assemblée waroon nekk mais vous savez depuis le mois de décembre ils ont fermé l' assemblée ñu en totale violation du règlement intérieur de l'assemblée ci lu ko waral loolu ba assemblée liggéeyul. mooy mooy que on doit se le bureau doit se réunir tous les mois euh, le président mais il ne le fait pas parce que on n'est plus dans un état de droit fi mu toll nii on est dans un dans une dictature dans du gangstérisme d'État et c'est ça qui fait que aujourd'hui la situation dans laquelle on vit donc tey qu'on tire à bout potentiel de député man bettuma fu réew mi jëm waaw fu réew jëm yal na ko yàlla sàmm ah, yàlla ko aar mais ku nekk da jël responsabilité parce que xëy ñu xëy egg fi je pense que tey bu ñu nee Sénégal pays démocratique la je pense que am na ay génération yu xeex pour que ñu toll fi ñu toll tey je que li ñu waral mooy ñun fexe ba loolu nu ñu bàyyee mbañ ndax saay tey man damay wax gars yi ne képp ku am naïveté wala wala yaakaar ne que Macky Sall bu amee boo ko bàyyee mu jàll euh, dafay dem dernier mandat mu jàll il va s'attaquer à la limitation des mandats parce que tey taxawoon na fii carrément ca Sénégal ne non je foofu tey ci loolu la ne mais bu ko sottee demee lu koy tere wax Sénégalais ne man maa newoon constitution bi la ménage j'ai damay dem Sénégal et je pense que ragal naa ne loolu si loolu la jëm kon nag ku yeboo fàggandiku xam ne que <clears throat> démocratie ak jàmm moo gën loo gis et je pense que tey amuñu droit dellu ginnaaw te Sénégal du dellu ginnaaw incha allah. merci beaucoup honorable député Abba euh, ci euh, dégg ngeen kaddu yu tam euh, noonu mukk ko indee fekkul woon yëf yi bi manifestation di am wala boog bi ñuy police di sànni ñoom Guy Marius Sagna bi leen di sànni lacrymogène bi ci tànk yi waaye nag nee na bi mu ñëwee. gis na fi loo xam ne vraiment euh, daw na yaramam te vraiment gis na ni daal Sénégal yi fi mu jëm jëmuli kër. waaw waaw waaw xaaral xaaral waaw mbokk internet gis nga gis nga gànnaayu journaliste yi de ah. vinaigre euh, bi la ñuy jël. Ah, moom la ñuy bu leen policiers sànnee lacrymogène moom la ñoom tam ñu gens ci la ñuy gens pour atténuer effet lacrymogène yi donc léegi mën na jàpp ne journaliste yëpp ay gens maanu euh, kilee la ñu bineekar te xam naa loolu moom euh, secret bi euh, étudiants yi ñoo leen ko jox voilà mais amoon fii ay ay ay wala ay ay jafe-jafe yoo xam ni suñu mbokk journaliste yi dund nañ ko boo tax nga gàddu sa sa butéelu sa butéelu bineekar bi Euh, na lu ngeen dund sànq tey ci suba bi ñuy bi ñuy jàpp euh, bu ñuy gaañ euh, Guy mari Sagna ak beneen député Diatta bi député bu jawaay bi yéen la la naa yéen li ngeen daj kenn du ko nettali. waaw li ñu daj kenn du ko nettali parce que effectivement ñun sax li ñu daj depuis démb ci guddi la parce que démb bi ñu toppee convoi bi ñu ay gaz lacrymogène ñu tere suñu oto mu dugg n'empêche ñun wàcc nañ ci oto bi dox wan leen nañ ci presse bi la ñu bokk. ñu sol suñu gilet presse mais bi nga xamante ne nañu oto Ousmane ba mu dugg ba suñu ñun ñu war dem taxaw ci rond bi dañ nañu carrément euh, duñu duñu dugg ci lañu nangoo kii téléphone ngóone suñu caméraman bi tamit ñu nangu lépp loo xam ne matériel bi mu doon filmé la. yéen ngeen di ay journaliste. ngeen yore seen carte de presse. takk ay gilet presse sol ay gilet presse. ñu ñëw nangu seen outil de travail. Mhm. nangu suñu ay outil de travail ba pare nañu bu ñu dégagé wul fii gazé leen. moom seen chef moom moo ko wax ñu ngi taxaw di ko dégg mu ne bu ñu fa jugewul gazé leen ak en ce moment mu ngi yoroon suñu ay suñu ay matériel donc dañoo obligé wax ak moom ne ko nekkuñu ay vayu ñëwuñu pour marché dañoo ñëw carrément pour liggéey information bi la ñu soxla donc amoon leen droit benn yoon du duñu bund xataal wala di nangu suñu ay matériel ci lañ ñu delloowee suñu ay yëf nañu nag nañu fa jugee buñ fa jugewul dañ ñuy gazé ce matin aussi euh, euh, gis nañ li nga xam ne moom moo xew fële ca euh, rond kër góor gi ndax bi Guy Marius Sagna di ñëw ànd ak les députés de coalition Yewwi Askan Wi euh, dañu ànd ak moom ngir xool ndax dina dugg ou pas donc ñun defuñu dara mënoon nañ ñu wax nañ taxaw ci côté bi liggéey mais dañ ñu gazé sànni ñu ay lacrymogène euh, Mouhamed suñu caméraman ci tànk bi lañ ko ko sànni mais heureusement ba li mu sol gudd na duggul ngoone aussi dañ ko gis ba nu mu ñëwee dañ ko ko visé sànni ko ko ci kanam ki nga xam ne tamit moom mooy libaas nekk suñu gaal 24 ci bopp bi lañu ko sànni donc journaliste Seneweb bi mu ngi mu ngi hôpital actuellement ndax dafa def crise mu nekk yoo xamante ne journaliste yi ñu ngi koy dund depuis ce matin te arrêté wuñu fu ñu gis ñu booloo dañuy ñëw gazé mais ay xeer wala ay bant lañu yore wala lu ñu yore bañ leen di gazé micro la journaliste yi yor caméraman yi ak caméra ak seen i gilet seen carte de presse la ñu yor te carte de presse yi ñoom ñoom ñoom gilet yi ñoom ñoo ko joxe tey bind nañ ci gilet yi indépendante donc nous ne sommes pas indépendantes donc li ñu bind noonu ci gilet bi ñoom gëmuñu ko buñ ko gamoon dinañu ñu bàyyi ñu liggéey buñ demee ba caméraman day yor ay matériel am ñu sànni ko journaliste yu yore gilet wam yor carte de presse yor micro ñu ñu gazé ko ba mu tëdd ci la l'hôpital donc métti na moo tax gisoo fi Seneweb gisoo fi Sunugal 24 ndax seen i journaliste lañu lañu la ñu def loolu noonu ñoom ñooy victimes yi tey Ah, kon mbokk mbokk internet yi dégg ngeen li nga xam ni moom mooy xat-xat wala jafe-jafe yi nga xam te ni suñu mbokk journalistes yi ñu ngi koy dundu depuis démb te xam naa ne du démb tey ak suba itamit parce que ñu liggéey rek moo tax a jóg euh, journaliste moom kenn mënu ko aaye liggéey journaliste kenn du ko tere yore micro kenn du ko mën a yore tere bic kenn du ko tere yore caméra kenn du ko tere yore jumtukaay bi nga xam te ni mooy outil de travail am mais Sénégal daal mooy sénégalu lu rek waaw vraiment euh, la presse bi vi bi mi ngi dund ay xat-xat yu méttee métti euh, yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura waaye daal Sénégal moom nekk journaliste moom yombul dara métti na lool lool parce que vraiment euh, foogoon nañ ni du ñu toll fii du ñu toll fii ci ay xat-xat ndaxte élection bu jaaree yoon tey fii ci Sénégal. la presse joué na ci plus de cinquante pour cent ndaxte euh, élection yi dañ daan toog rek ñu naan euh, résultat yi sàngam génn résultat sàngam génn bi journalistes yi nag jëlee jëlee yëf yi en main di dox di dugg ci bureau de vote par bureau de vote di joxe directement les résultats ci la transparence commencé di génn ndaxte léegi di naan kenn mënu sax sàcc élection lu dugg la ndaxte journalistes yi dañuy photo PV yi di ko dugal ci réseaux sociaux yi di ko dugal ci site internet yi di ko dugal ci quotidien yi di ko dugal ci magasin yi donc amatul fenn fenn foo xam te ni euh, nit mën na fa jaar ba euh, exemple yàq élection te mesure démocratie moom ci élection rek lañ ko mën a lañ ko mën a nattee donc te journalistes yi def nañ fi euh, lu rëy rëy rëy ci ci élection yi nga xam te ni mooy am fii ci réew mi donc nañu bàyyi journaliste ñu liggéey seen liggéey du ñu ay nervi du ñu ay samba boy dañuy liggéey seen liggéey te seen liggéey donc la ñuy yem bu fekkee nag police dañ ñëw teg seen benn cordon de sécurité wala ak ñoom niñ ko tuddee nañ wax journaliste yi fii ngeen mën a yem journaliste il est intelligent dof du dof nee ko fii ngeen mën a yem li ci des ñun ñoo ko moom ñu bàyyee leen ñoom li ñu moom te ñu ñu moom waaw loolu moom journaliste yëpp fu ñu daan mës a dajee sax dañ ciy waxtaane ci ci waxtaan demee noonu que nii lépp loo xamante ne nii sécurité la boo xamante ne nii ñoom waa alkaati yi wala boog waa takk der yi teg nañ ko buñ ko franchir buñ ko jéggi ne bu fekkee mais bu du ñuy yemloo fenn dangeen di jékki-jékki rek lacrymogène mel ni ah, tulleeg màlle mel ni mbàccum gerte fu nee nit ñi di ci daw di nga gis ay dañ nga sànq témoignage bi concert bi wax am na ci koo xam ne dafay amee crise ma dee tali bu dee dafa amee asthme wala sinusite wala feebaru xëtër wala feebaru nooyi yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni euh, suñ mbokk journaliste ñu ngi koy dund te vraiment lu metti metti la. Eh, mi ngi nelaw mi ngi ma waaw voilà gis nga euh, euh, L200 bi ngeen di gis nii ci le honorable député Abbas Fall. Euh, dugg léegi euh, mi ngi noonu di dem parce que ci laa ko dab ma laaj ko ndax yaakaar na ni euh, Guy mari Sagna dina génn léegi nii mënuma amu ci yaakaar ndaxte Guy Marius Sagna il est aux soins intensifs te mi ngi nelaw donc yaakaarul ne dina génn léegi nii donc xam naa ni gaañ-gaañ bi metti na moo tax ñu téye ko aux soins pour après ñu xool naka la wanenti mujjee gëtam boy may ñu may ñu tudd s'il vous plaît voilà gis nga euh, alkaati yi ñu ngi noonu policiers yi euh, ñun ñu ngi nii taxaw ci euh, buntu sami assistance bi fi nga xam te ni fii la ñuy téye Guy Marius Sagna alkaati yi nag ñoom ñu ngi nële taxaw fas yéene sox seen jum xamuñu nag ndax suñu kaw la jëm wala waaye gis nga dawal nañu ba ba jub ñu à cinquante mètres environ léegi nag ñu ngi ñoon taxaw génn nañu génne nañu seen lance lacrymogène yi. mbay di kaay ni côté hôpital bi xanaa bokk lu ñu lu ñu tërë di tërë di kenn du sànni lacrymogène ci hôpital yaakaar naa voilà. toute la presse ici dans vers moo gën a wóor. <coughs> non mais mais d'accord mais quand même xanaa buntu hôpital xanaa kenn du fa sànni lacrymogène quand même. tamit moo tax ma ni toute la presse ni ñëw fi.